أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi tey dañoo amoon mbégte jàkkaarloo ak suñu mbokk jullit pour jéem a fàttali leen jëm suñu wàllu diine waxtaan wi tey mu ngi jëm ci thème bi mooy lan mooy taxawaayu jullit ci feet yi nga xamante ni bi ñu dul jullit ñu ngi koy organiser kon jullit bi moom lan moo ci taxawaayam pour bañ a guddal dañuy jox suñu mbokk suñu xarit suñu sëriñ Oustaz Saïd ni mu tàmbali jotaay kon Oustaz tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمه وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi jéem ci ay minutes yu gàtt fàttalante ak mbokk yi ci thème bi mbokk bi ubbee léegi muy ayaadul kuffaar wa mawqiful muslimu minha feet yi nga xam ne mooy feetu yéeféer yi lan moo ci taxawaayu ab jullit mu nekk tomb boo xam ne dafa ñëw ci waxtoom ñu nekk ci décembre li ëpp ci doomu aadama yi rawatina ñii di jullit yu saarikuuna fi tilkal ihtifaalaat tey di nga fekk jullit yu baree baree bari ci àddina bi wala ci biir réew mii di Sénégal di wootewu ay jullit quatre-vingt-quinze pour cent musulmans nga fekk leen tey ñuy participer ci feet yi nga xam ne ay feetu yéeféer la boo leen laajee ñoom jullit yooyu waaw yéen lan moo leen poussé ba ngeen di feetu feet yooyu ñu ne ala annaha munasaba alamiya ñu ne la xew-xewu àdduna la quoi bon on ngi ci décembre bon foog ñu fête quoi parce que c'est la fête de l'année quoi yooyu lañ lay may quoi yooyu la ñuy toll annaha munasaba alamiya dañ lay wax ne événement monde bi yëpp la tuhimmu sukaanal ard kulluhum monde islamique bi yëpp wala adduna bi yëpp la affaire bi yitteel wa ma alima haula anna ihtifalu biha huwa ihtifalu bi sha'airi din annasara almuharrama jullit yooyu nga xam ne ñu ngi participer ci fête boobu ñoom xamuñu ne feetu ànd ak ñoom ci feet yooyu mooy dimbali nga nasaraan yi ci feet yi nga xam ne dafa aram feet bi feet bu xaraam la ci ab jullit mu bokk ci lu tax ndax mbokk yi fen bi gën a rëy ci àdduna sos gi gën a garaaw mooy fen bi ñu fenal yàlla ñu ne yàlla moo am doom kenn ci ñun ku toog fii wala kuy dégg kàddu gi suñu waxoon sa baay palaasu sàngam moo fa am doom te amu fa jabar est-ce que di nga feetu laaj bu ma leen laaj la suñu waxoon kenn ci ñun quelque part ci ruq yi ci koñ yi ñu ne la sa papa moo fay ngénte suba wala sa papa moo fay ngénte tey te sa papa amu fa jabar luñ la wax loolu lañ wax yàlla ñun ñuy feetu moo tax yàlla dafa doog ba càgg mu ne ci hadis ba mu ne satamani ibnu adam doomu aadama def maa saaga te wa maa yambagi lahu an yastumani te yellul ci doomu aadama mu may saaga ñu ne yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga mu ne doomu aadama nee na man yàlla dama am doom asamaan bi mu déggee ñu ne yàlla am na doom yàlla moo ñu ko nettali de mu ne yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan mu ngi xar ñu ne ko montagne yi nag mu ne wata xirrul jibaal ñu ne ko suuf si nag mu ne watan saqul ard suuf di xar yàlla lu tax mu ne an daaw lirrahmani walada ndax dañ ne yàlla am na doom te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda kon mbokk jullit yi dana jaadu wax dëgg yàlla comme ni mbokk yi def suñu yegg seetee ci décembre ñu leelaral jullit yi nga xam ne dañoo riir jullit yi nga xam ne dañoo sànku ci bokk gi ñuy bokk ci décembre ci 24 ba ba ca 31 ba ba ca 1er janvier ba ci cadeau yi ñuy jënd ñu xamal leen ne dafa araam bu fekkente ne ay jullit ngeen su fekkee gëm ngeen yàlla gëm ngeen Seyduna Muhammad islam ngeen di woote woo yëg leen ne feet yi ma wax amu leen ci place kenn woowu leen ci waaye assira bayna alxaq walbatil daaim ma daamati dunia xëccoo dëgg ak fen dafiy wéy di continuer fekk addunaa ngi fi dëgg day ñëw di xëccoog fen fen day ñëw di jéem a nangu palaasu dëgg waaye dëgg dana yaafuus ba fen samp fi caaxaan samp su fekkee dëgg dafa daw comme tey dëgg ni mu dawee li tax tey addina bi ay fen samp fi ba kenn ñemewul wax kenn ñemewul weddi mooy dëgg moo daw dëgg la ay mbokkam nasax dëgg la ay mbokkam yaafuus moo tax fen ñëw daal di samp ay reenam daal di koy tasaare ba tey ku yëkkatiwul di wax ci caaxaan dañ naan kii waxul dëgg kon siraa la boo xam ne dafee sax maadaamati dunia fekk addunaa ngi fi wattibaau fia fia min ummati muhammad ahla albatil fi batilihim min alyahudi wannasara wa majus wa ibadati alawsan wa gayrihim tey da ngay gis lenn ci xeet wii di tuddoo Seydina Muhammad suñ waxee Muhammad ñëpp fettasu is kay loxo ci kaw bàkkaar ci suuf kuréel yi woote woo Muhammad bari ci réew mi nga leen di lim ahbair rasul nangam rasul soppey rasul façon tur bu nekk nga dégg ko ci ay jullit ñuy woote woone ñoom dañoo bëgg Seydina Muhammad waaye ñan lañ topp ahlul baatil ñi nga xam ne ci caaxaan lañ nekk ahlul baatil fi baatilihim ñi nga xam ne réer lañ nekk ci seen réer googu la leen gaa yi topp min al yahudi wan nasara topp yahudi ci rëdd yi ñu leen di rëddal topp nasaraan yi ci yoon wi leen di taaralal topp majuus animiste yi waaye wa ubadil awsaan ak ñi jaamu xërëm tey jullit yi ñi lañ def ay royukaay topp leen ñu bàyyi fële Seydina Muhammad soo waxee ñu ne noo diine boobu dafa tàng quoi noo diine boobu daf ñuy teree noos noo diine boobu nangam nangam waaw kon lan ngeen di wootewu naan da ngeen a bëgg Muhammad su fekkente ne Muhammad ngeen gëm Muhammad mooy seen yonent yàlla lu mu leen wax ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ndax Muhammad indiwul ma kaana li mu'mina ma kaana li mu'minin wala mu'mina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim ndax yàlla waxul loolu ndax yàlla waxul yellul ci julit bu góor yellul ci julit bu jigéen yàllaa ko yonentu wax ba pare ñu taxaw naan waaye waaye waaye nag fête bi c'est fête de l'année quoi ñun feetuwuñu 24 mais année bi quoi année bi année ñan la yow moo yow moomu naan année année bi laay feetu ñu ngi lay laaj année bi année kan la xanaa xamoo bokkoo ci milaad yi ci hijri yi nga bokk xamoo loolu xamoo ne bokkoo ci milaad yi bokkoo ci 1900 ci 1400 nga bokk bokkoo ci milaad yi yaa ngi bokk ci hijri ya xamoo loolu xamoo yow bokkoo ci décembre yaa ngi bokk ci rabiul awal xamoo loolu kon soo ko xamul xam ko mbokk jullit yi du jaadu ci ñun du yell yàlla duñu ko yombalal te duñu yërëm ñuy participer ci feet yi nga xam ne ñi koy def duñu ay jullit réew mi bu fekkoon ne xumbaluñu décembre su fekkoon ne xumbaluñ ko ginaar sax du fi jar mais maa la saf da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy dem jëndi ginaar di tooñ ginaar ci ban bis bis buñ naan yàlla am na doom ngay feetal naan noom wax ñun baaliwuñu waaye sunu kër nangam ak nangam du jaadu ci ñun ñu topp ahlul batil min al yahud wan nasara ñaata yoon ci alquran la ñu yàlla tere ñu topp yahudi ak nasara ni ñaata seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla dakaa yónni ci barab yu bari na woot na wuuteeg yahudi ak nasaraan yi ñëwal ci sikkim ak naanu sikkim ak mustaas muhammad dafa ne nasaraan yi dañuy bàyyi naanu yu mu wàcc dañuy wat sikkim yi yahudi dañuy bàyyi ñaar yëpp mu ne yéen wàññi leen naanu yi bàyyi leen sikkim yi nga ñëw ci nodd mu ne yahud yi bu julli jotee seen julli dañuy rëkk ay kolos wala ay béjjën la ñuy ëf ay béjjën tuur nasaraan yi dañuy fëgg ay kolos mu ne yéen na ngeen nodd mu ne woor leen samedi ak dimanche ndax ñoom ñaar ci la ñuy feetu yonent bi daan jublu baytul maqdis mu nekk barabu yéeféer yi ca seen jamono yàlla daal di wëli bëti sayduna muhammad ne ko jublul masjidil haram chaque jour yonent bi di wëlbateeku chaque jour yonent bi di wëlbateeku lu gaa yi def mu def leneen luñ def mu def leneen mu fekk leen ñuy feetu samedi ak dimanche mu jël vendredi mu fekk leen ñu am ay feet mu indi tabaski ak korite xam nga yahudi ak nasaraan lu ñu wax lan moo jot waa ji lan moo ko jot ba moom lépp lu mu dégg ñun ñuy def rek mu dem def leneen tey Seydina Muhammad bu ñëwoon Sénégal fekk ñuy feetu 24 ak 31 dana ñaan yàlla dem tëddiwaat Médine ba yowmal qiyaam mu doog a dékki xanaa xamu leen ne yéen même waxuma sax Seydina Muhammad ci ci 24 ak 31 lii ñuy feetu sax ñañu koy feetale seeni maam ñoo doon duma sunuy maam fii kan moo génne woon Cheikh Ahmad Bamba Sénégal ba mu taxaw ca digg géej ga naan axrajtumuni naatiqiina bi anni la abdul ilahi la mujahid ah kan sunu maam yi ñuy wax fii ci biir dëkk bi ñan ñoo leen doon rey ñan ñoo lakk université Pire bi ñan la université bi amoon fii nga xam ne mooy première ville université Afrique fii ci Sénégal Pire ñan ñoo ko taal ñan la waaw xanaa sax boog ñun ñu xam sunu bopp sax olof yi dañuy wax ne kuy wàlliyaan sa kër a tëggul kon war nañu jàngaat suñu histoire war nañu xamaat suñu diine war nañu xamaat ñun ñooy ñan ba ñu bañ a xaaraani kenn di wàlliyaan ci loo xam ne dafa araam wàlliyaan loo xam ne dara du ci diine te lu ruslu sax du xale yu ndaw yi ay mag ay borom kër yu bëgg a fo ñooy laqatu ci ginnaaw xale yi ay borom kër yu bëgg a fo ñooy laqatu ci ginnaaw xale yu ndaw yi di organiser ay soirée di organiser ay fête di organiser di organiser partout ci biir Sénégal ñëpp ne pat góor ak jigéen yi jaxasoo naan sàngara njaaloo fecc mooy yàlla ba bët set dem ñibbi loolu kese mooy fête bi de du leneen naan sàngara njaaloo def yu bon ñibbi koo dégg mu naan damaa feetu ji ci lii rek la nekk xool ko fu mu jëm fan la damay feetu ji topp ko ci danse yi la jëm ci soirée yi ci xale yu jigéen yi la jëm wala xale yu góor yi ci sàngara ji la jëm ca njaaloo ba la jëm jeex na mooy fête bi kat fête bi du tout court li ngay dégg mu gàtt yëpp loolay fête bi war nañu rus nag ñun ay jullit lañu mbokk yi tabaski ak korité doo gis kenn xëccoo koog ñun tabaski ak korité kenn du ko xëccoog ñun waaye bu yeneen yi jotee rek ñun ñuy xaaraan yi topp yahudi ak nasaraan yi waxuma sax ñu topp yahudi ak nasaraan yi waaye majuusi animiste yi ñi nga xam ne ay xërëm la ñuy jaamu moo tax bàkkaar bi gën a rëy mooy jël lu ñu war a rendi xar la ginaar la nag la gëléem la lu mu mën a doon nga rendi ko jour 24 wala nga rendi ko jour 31 wala nga rendi ko jour 1er janvier kooku bëgg a def loolu baa ngi koy fàttali yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te yàlla taxul waa ji rey ginaar 31 décembre wala 24 wala 1er janvier nañ ko laaj yow lu tax nga rey ginaar gi ci yan raison nga ko rey yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande ki rendi te rendilul yàlla rawatina nag kuy rendil ma juus wala ngay rendi ubaadul awsaan wa gayrihim ak ñeneen ñu mel ni ñoom ndeysaan waaye loolu yëpp wa baqaau taif alal xaq li dëkk bi lëndëm yëpp li bokkaale di bari li bidaa di bari shirk mooy yàlla li muy bari li nit ñi di caaxaan yëpp am na fi mbooloo mu ndaw moo xam ne ñu ngi sax ci dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñooñu noonu la ñuy mel ci loolu la ñuy nekk bañ a topp nit ñi caaxaan sax ci dëkk googu waaye yonent baa ngi bëggal ñooñu nee na leen danañu am darajay tiyaaba xamsiin rajulan yaamaluuna fi zamani sahaba ñooñu sax ci dëgg googu ñooñu ñuy mbëw ñooñu ñuy joxoñ ñooñu ñuy duut baaraam di leen wax ak di leen askanale yeneen bi nee na ñooñu nañu muñ te nekk ci dëgg yeneen bi baa ngi leen di bëggal ne yàlla dina leen bindal tiyaaba xamsiina rajulan juróom fukki góor ca sahaaba ya jëf yuñ doon jëf yàlla dina ko fay kenn ci ñoom fii bu ko jëfee kon loolu rek bisaara la bu rëy a rëy a rëy boo xam ne tey war naa tax nit ñi sax ci dëgg mbokk jullit yi noonu la ñuy mel nekk ci caaxaan di font dafa ne ñu ngi ci xeetu muhammad dafa ne ñoog sayduna muhammad ñoo bokk yoon ba yawmal qiyaama yonentu nee na ma jiitu leen ca sama ca sama dex ba ma jiitu leen ca sama xawdu ba sama mbalka ma ma jiitu leen fa ñu ñëw nag ñoom nag bëgg naan nag man sax dama yaakaaroon ne man yonant maa ngi ñuy ñoo bokk parce que maa ngi gis ay mandarga ci ñoom yu may bëgg a wan ne ci man lañ bokk yonant nee na fa may jëlee kaas yi di tànk di leen bëgg a jox ñu naan rek malaaka yi ne ma taxawal ma taxaw mu ne ma yaag ñi bokk leen ma ne waaw luy sabab bi mu ne ma ñii yokk nañ wàññi nañ yonent bi ne nañ ma sori kon bu yeboo ñu yem ci liñ yonent bi yem loo bu yeboo ñu jàpp ci liñ yonent bi jox lii mbokk jullit yi benn muqaddima bu ndaw rek bu ma doon def la doog a bàyyi programme bi incha allah comme dañu defoon ne ay laaj la ak ay tontu ci loolu la ñuy def waxtaan bi laaj bu ñu laaj ñu yëm cee def waxtaan cinq minutes tuuti incha allah ba programme bi jeex kon li muqaddima la woon rek ma jox mbokk bi incha allah mu commencé lire question yi.
waaw dinaa ko laaj xanaa bu saa kii lay laaj nee na ba xam juróom bu jigéen mën naa xool benn chrétien bu góor wala est ce que benn chrétien bu jigéen mën naa xool benn musulman bu góor.
alhamdulillah vendredi bii passé wala ba ko jiitu ba ko jiitu mooy bee passé dañ doon tuubloo benn mbokk bu jigéen sunu jumaa ji fële ci wetu stade bi waaye mbokk boobu balaa muy tuub ku jigéen kooku dama ko indi sama kër pour wax leen danger yi nekk ci jullit bu góor dem see chrétien pour wax leen danger yi ci nekk pesta bii rek dina doy du ma indi yeneen yi passé vendredi bee passé moo laa koy wax parce que bii vendredi moo moo lay am une semaine bi ma ko convoqué sama kër di ko laaj histoire am ak lan moo tax mu bëgg a tuub di waxtaan ak moom mu ne ma man sama papa jullit la sama yaay mooy chrétienne moo sëy ak sam papa ma juddu ci maay seen taaw mu ne sama yaay ak sam papa tas ma dem ànd ak sama yaay sama yaay jox ma sama maam comme ci église bi la nekk ma nekk catholique ma ne ko noo tudd mu ne ma Amina Aminata kat turu kan la ah turu jullit loolu la ko papaam tudde woon imagine leen Aminata catholique Aminata catholique ma ne ko léegi nag mu ne ma sama yaay fa mu doon sëy dafa tas beneen jullit takkaat ko mu nekkaat jullit fekk man jàng naa ba bëgg a def sama communion mais xaw ma daal lan moo ma arrêté ba ma ne daal damay nekkaat jullit kon gis nga famille bi nii la ñuy def nii dem di dikk munuñu munuñu am sabaat munuñu sax fenn lu tax parce que bàyyi jee ko def lan ngay tërërëri ji di uti ay nasaraan xanaa sax jullit yu jigéen yi yaafu si nekk fii sax boo ci amee kenn mën nga koo defaraat boo góorgóorlu ah kooku sax bu ngeen dundoon nga bàyyi ko moom say doom du ñu nekk ay leneen xoolal te loolu dafa bëri ci dëkk bi man dañ ma koy laaj tout le temps chaque instant su ma defee waxtaan ci yu mel noonu di nga gis am ku bàyyi ba waxtaan bi jeex mu ñëw ci man jàpp sama loxo ne ma ñu sori tuuti ñu sori mu ne ma nit fekk na ma fu ma bayaan jumaa ba pare mu jàpp sama loxo ne ma nañ sori tuuti ñu sori mu ne ma li nga doon wax man mii la dal sama taaw bu jigéen tey jii ma ngi ca nasaraan ya damaa fasa yaayam mu topp yaayam nekk nasaraan mu ne pourtant maa ko yoroon sax nangu ko maa ko yar waaye damaa takk beneen jabar mënta dund ak jabar jooju mu dem fekk yaayam kon mbokk jullit yi ay danger kese moo ci nekk jullit bu góor dem takki nasaraan wala jullit bu jigéen boobu moom dafa aram parce que góor moo moom pouvoir ar rijalu qawamuna ala nisa góor moo ëpp pouvoir jigéen waxuma sax yooyu waaye même sax sunu këru diine yi da ngay dégg xale bu jigéen bi suñ ko takkee ñu ne ko yow lan nga mu ne li sama jëkkër nekk laay nekk du la wax jullit laa de daanaan la li sama jëkkër nekk laay nekk waaw kon léegi bu ko chrétien bu ko chrétien takkee lu muy nekki da koy fekki yooyu ay danger kese la na ko jullit moytu su fekkee dafa bëgg am njaboot goo xam ne ay njabootu islam lañ démb benn xale bu jigéen mu ngi Arabie Saoudite mu ngi may wax ne sama turandoo papa Assane la tudd waaye catholique la ma ne ko lu tax mu ne ma parce que turandoom dafa murtat turandoom dafa murtat Assane ba dafa murtat nekk catholique bokk jullit yi nañ xoolaat suñu diine diine l'islam du lu ñuy foog fii de bëgg a indi ay sentiment non mën naa nekk jullit mais ma takk fee déedéet yàlla waxul loolu de yàlla dafa ne lakum diinukum teggali leen aaya bi lakum diinukum loolu waxu yàlla la lakum diinukum waliya diin su fekkoon ne yàlla bëggul loolu kon du wax loolu kon nit jullit bu góor na ngëpp ci diineem jullit bu jigéen na jàpp ci diineem yàlla ba muy wax sëy dane innal muslimina lu mu ci nekk wal muminuun al muminaat baaduhum awliyaau baad gis nga même ba muy wax ñu bon ñi dafa ne innal munafiqina wal munafiqaat wal mushrikina wal mushrikat olof yi nee nañ dërëm ak dërëm ñooy ànd dërëm ak duubal du ñu ànd de
waaw ñaareel laa ji mooy nee nañu est ce que dagal na nga ànd ak sa parent boo xamante ni bii du julli exemple sa benn parent boo xamante ni bii du julli daal di génn àdduna est ce que dagal na nga ànd ci rob yi ñu koy def bu yóbbu armée yooyu wala nee na bu fekkente ni bii waa ji gaal ñëw sa papa xam ne sa benn xarit la aussi nee na est ce que dagal na nga ànd ak moom ci yooyu.
l'islam moo moo nu jàngal nan la ñuy dundee ak ñu dul jullit yoral nañ leen ay àqan pour wan ne ci dëkk bi lañ bokk yoral nañ leen benn àq muy àqu dëkk bi ëpp ñu leen fi dara ëpp luñ ñu fi dara ñoo fi bokk yem yéen a bokk quartier bi da nga am sa kër ñu am seen kër yéen a bokk mbedd mi yéen a bokk lépp yéen a bokk marché yéen a bokk hôpital bi yéen a bokk lépp ci dund bu rafet boobu l'islam nangu na ko waaye nag l'islam dafa am fu mu ñu yem loo waa ji sa mbokk la du jullit wala sa xarit la du jullit su faatoo su génn àdduna sant nañ la nga jaale ko wax nañ nga dem këram waaye nag doo dem armi seeni armeel waaye nag doo ko ñaanal di nga dem jaale ji nag soo demee bul wax allahuma igfir lahu warhamhu de bul wax allahuma igfir laha warhamha soo ñëwee waxal siggil ndigaale wala nga ne mes condoléances loolu la islam sant yemal foofu amma di jéem a jaay nag yaa gën a baax yàlla yaa gën a baax Seydina Muhammad ndax da nga yenu néew bi yóbbu ko fële ñëw dugg loolu nag yàlla waxuñu ko bu fekkee diine lañ bëgg diine moo ñu jàngal diine fii la wax ñu yem jaale jël lim la wax nga wax demal ci dëj ba bokkal participer waaye nag dafa am ligne bu mu la rëddal ne fii bu ko passé
ci leen est-ce que dagal na ñu wax benn chrétien suñuy mbokk julli
déedéet daganu de li dagan mooy li yonent bi wax innamal muminuuna ixwa al muslim as axul muslim loolu moo dagan jullit mooy sa mbokk keneen ku dul sa mbokk sa àndandoo la rek ci àdduna waaw sa mbokk ki la yàlla wax ne mooy sa mbokk mooy kan mooy ab jullit yonent bi moo la wax loolu alxuraan wax la loolu kon nag li ñu alxuraan wax yonent bi ñëw feddali ko ci hadisam loolu mooy li am gisuñu fenn ci alxuraan yàlla mu ne sunu mbokk nasaraan wala sunu mbokk yahud wala am na ixwaanuna al yahud am na ci alxuraan nasaara amu ci an nasaara la yàlla yàlla di wax wala mu ne al yahud wala mu ne wal majus point
lay laaj mooy ci ñu ne lan moo tax chrétien yi ñu fekk 24 décembre ak 31 décembre waaw loolu nañ leen ko laaj loolu moom laaj boobu du man lañ koy laaj lan moo tax chrétiens yi di feetu loolu ñoom ñoom lañ koy laaj yéen dem ñoom ngeen ne leen yee yéen lu tax ngeen di feetu 24 ak 31
waaw ci ñu ne euh, lan mooy conséquence bi nga xamante ne bii jullit bu jub di ànd ak ñun ci fête yooyu ñu fête 24 wala 21 ak bi ñu jub di ànd ak ñun ci fête boobu bu ñu boobu lan mooy conséquence ak kër yoon ci am danger yi nekk ci nga dem participer ci feet yooyu mooy da ngay génn ci lislaam da ngay murtad yonent bi nee na man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum yonent bi nee na ku ñuulal mbooloo ay nit yaa ngi mbooloo moomu yem yonent bi moo ko wax fa huwa minhum loolu lu muy tekki mooy foofu nga bokk kon soo fa bokkee mo bàyyi nga fi nga nekkoon olof yi sax li ñu wax mooy ku wàcc sa ànd ànd boo yëg mu toj kon yow da nga am ànd yemal ci sa ànd ñun amuñu droit dem ci yeneeni feet wala yeneeni xew yoo xamante ne du xewu lislaam yow sax boo demee ci feet boo xam ne du feetu lislaam loo fay def ban ñaan ngay ñaan soo fa demee ñuy naan sàngara soo fa demee ñuy lekk yàpp mbaam soo fa demee ñuy njaaloo looy def xanaa doo toog fële ne non man damaa ñëw rek pour gars yi ah ah asalaamaaleykum déedéet da nga ci bokk kon nag nga bañ a dem moo gën ndax yonent bi nee na képp ku bëril mbooloo ay nit yaa ak ñoom a yem fa huwa minhum la yonent bi wax kon génn na la ci kon nag jarta dem
kii moom la lay laaj kan mooy Père Noël
loolu suñu continué woon thème bi bu gudd dina feeñ ci nax yi ñuy nax jullit yi naan Père Noël def ci ay cadeau pour nax doomi jullit yi waaw dañuy jënd ay cadeau sax denc ko wax xale bi suba te loolu moo gën a dangereux ndeysaan sama benn xarit bu nekk France ay doomam dañu jardin lañ nekk jardin ñaari xale dañoo xëy jàngi jour 31 décembre te su ci ginnaaw suba sa daal bi fee di jeexee ñu dem jàngi ki leen di jàngal ne leen tubaab la mu ne leen ndax gis ngeen gis ngeen gis ngeen Père Noël ay jullit ñaari xale yu ndaw jardin 3 ans 4 ans ki leen di jàngal ne leen ndax gis ngeen Père Noël benn xale bi ne ko déedéet ñun gisuñu ko de mu ne gisu leen ko mu jóge kaw asamaan di leen indil cadeau mag gi ne ko déedéet kaw asamaan yàlla moo fa nekk Père Noël nekk ko kaw asamaan yàlla moo fa nekk waaw ndeysaan ki leen di jàngal xulli xale bi xulli xale bi wut ne ko Père Noël nekkul asamaan de Père Noël nekk fa ku fa nekk mu ne ko buur bu tudd Allah moo fa nekk quatre ans la xale bi am xam naa ne kooku bu doon jamono tey la dañ naan xale bi terroriste la nar a nekk Sénégal boo nee yàlla rek ak yeneen duñu ne terroriste moom kay yeneen ngay wax ñu ne ah kii moom kii moom tiituñu ay mbiram mais yàlla kese yeneen ñu ne xam nga kii formation bi muy formé xale yi baaxul kii waxtaan bi muy wax nii ah dafa bëgg indi yàlla nee na yeneen bi nee na loolu mooy diine bi Père Noël ay nax la yuy nax suñu doomu jullit yi jënd ay cadeau ne la Père Noël moo la koy indi indi benn waaye solal ko lu rouge defal ko sikkim bu weex di ñu nax léegi nga gis bitig yi commencé bitigu jullit yi ak seeni place yi commencé marché yeeg fi ñuy liggéey ak yëpp léegi ngeen gis fii ak 3 jours ñu commencé peinture tali yi defal leen ay lampe grande mosquée li ci gën a dangereux mooy grande mosquée sax day bokk ci fête bi ca sooroor bi la ñuy dem daf fay ndeysaan ay jeux de lumière jàkka yàlla ji sax day bokk ñu ne ko ci ngay bokk ah da ngay participer ci fête bi wuy loolu mooy yooyu ay kan ndax réer gu sénégalais yi réer jeu de lumière yi day wax laa wax day dem ba ca jàkka ja ah daaw de amoon na xaw ma ren nag daaw de defoon nañ ko ci ndax réer gu jullit ñi réer te tey ñoo ngi nii ci gàmmu yonent bi du tey ji la gàmmu gi lu tax peinture leen tal yi lu tax takku leen ay làmp da ngeen a am ku gën Seydina Muhammad wax leen dañoo am ku gën a màgg Seydina Muhammad ñun jullit yi waaw lu tax léegi kon su loolu ñëwee kenn du yëgal dara yaramam suñ keneen ñëwee rek ñu ñu commencé di ñu rey mooy nax bu ñuy nax gëmloo guñ ñu gëmloo yeneen feet yi waaye gëmloo wuñ ñu ñun suñu diine li mu moom ne loolu moo jaadu kon Père Noël la asla lahu fi diin amul cosaan ci diine du islam yoonam nekku ci jullit yoonam waru ci nekk
am na ñoo xamante ne bii dañoo bëgg génn dem ci fête yooyu. waaye jëlal micro bi sa gémmiñ waaye dañ naan man kat foo kër laa nekk ak samay doom ci biir kër gi lañ koy féetewoo. ñeneen loolu tamit ñoom lan la ci yàlla wax.
waaw ñoo ñooy ñu yées ñi ñi yées ñi ñooy ñoo naan man demuma ci feet ba yow bul wax feet fii feet dafay amut ba nga naan man demuma ca feet moo fi amut loolu lislaam loola koy tere feet moo fi amut ba nga naan demuma ca fet ba mais sama waa kër laay téye ci biir moo tax ma jëndal leen ay ginaar ginaar googu ngay rey ci lan nga ko rey ci yàlla dafa am doom te bis bu nekk booy julli looy jàng qul huwa allahu ahad loolu lu muy tekki jinne yi ba ñu déggee ñu ne yàlla am na doom jinne yi allahu akbar dañoo yuuxu ba seen génn ñi seen gémmiñ ñi di génne safara naan wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan jinne yi laa wax de waxuma nit yi jinne yi wa annahu taala ay waay kawe na waay bàyyi leen di ngeen di wax taala la la yàlla wax de wala du loolu yéen ustaasi wa annahu taala kawe na lan lañ ci teg jaddu rabbina sunu màggaayu boroom ci lii ngeen koy tuumaal naan dafa am doom yàlla romb na loolu kon nag yow nga dégg loolu nga ne da ngay dem jël ginaar di ko rey bis boobu pour say doom da nga ëpp ginaar gi doole rek waaw ginaar googu dañ ko ëpp doole rek ginaar gi gën a perte ginaar gi gën a ñàkk sens mooy ginaar gi ñu rey 24 décembre allahu akbar moo ñàkk sens dee ci jour bi nga xam ne yàlla dafa mer ci jour boobu kon loolu bu ko ab jullit def bu ko bu ci ab jullit soppi cin ndax bokkoo ci su fekkoon ne diine la diine moo lay sant naka ngay defee waaye bii du diine moo tax bu kenn wax ne feet bi déedéet dadul feet parce que du sunu feet
beneen laaj bi mooy. ki ñu ne loolu laaj ñoom.
waaw bu fekkente ni dañuy feet feet yooyu ñu daal di ci jox benn carte d'invitation est-ce que war na cee dem wala déet.
waaw ñëwal dugg safara rek kaay dugg safara mbon weesul et puis li olof yi dañuy wax ne bukki bu yabee ponkal ca doxin bala ah man xaw ma yéen de waaye man mii toog fii kenn amul xel ñëw naan ma l'invitation la 24 décembre da nga ñëw wala yéen tamit fii ci yéen am na fi ñoo xamante ne kenn doful seen koñ laa wax de kenn dofut di ko invité parce que xam nañ ne kii bokkul ci yooyu loolu la su jullit yëpp wane woon ne ñun bokkuñu ci kenn du ñu invité soo wane woon sa comportement sa doxalin sa dund sa diine kenn du la woo ci sabar kenn du la woo ci soirée kenn du la woo ci meeting kenn du la woo ci caaxaan yi nit ñi nekkee mukk olof yi nee nañ bukki bu yabee ponkal ci doxin bala ci yow la soo yaafuusee seen koñ yenn saa nga gis ab ilimaan bu ñu indil sabar de ñu indil imam bi carte imam dañuy sabaru fii samedi mu naan xale yi la xale yi la loolu dara ñëwal nga ñaanal ñu rek ñu ñaanal rek nga dem imam boobu deful rôlam xanaa déggu leen sànq hadis bi ma wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafay yàlla day wax ci alquran su ngeen fekkee fuñ may xasee ngeen toog fa yéen ak ñooñu yéen a yem nga fekk fu ñuy dajee diine l'islam ah feet yoo xam ne du feetu diine ay caaxaan ñu invité la ci yow la soo meloon ni nga war a mel kenn du la ci woo yow yaa wàcc sa ànd yow yaa mel beneen melokaan ba ñu tuumaal la ñu daal lay woo ci caaxaan loolu nag ci pas-pasu jullit yi la jullit dafa war a incarner diine waxuñu kenn xeexal waxuñu kenn takkal bomb waxuñu kenn reyal kenn dañu ne gëmal sa diine gëmal sa diine xamal fi nga war a yem nekk lu la neex ngay def déedéet ñun jullit yi dafa am fu ñu yàlla ne def leen lii wax leen lii bàyyi leen lii yem leen fii soo xamee loolu rek jeex na da ngay noppalu dootoo sonn ci sa dund da ngay xam lu tax ngay tukki lu tax doo tukki lu tax ngay wuyu ji lu tax doo wuyu ji foo war a dem ak foo warta dem waxuma sax ci mbirum caaxaan yooyu même ci diine ji am na yenn saa yi ñu lay woo ci ay caaxaan même ci diine ji même ci diine ji yenn saa yi nga gis ay jullitu caaxaan kat yu la bëgg a woo ci seen caaxaan loolu nag ci yow la rek foog ñu changer suñu comportement yi foog ñu gëm suñu diine addu alayha bin nawajis ñu matt ko ci suñuy dëgëj suñu mattee diine suñuy dëgëj kenn du ñu woo ci caaxaan
kii nee na est-ce que benn école franco-arabe loolu mooy bu joxee est-ce que école bu war naa jël fenn.
ñaari mbir moo ci nekk am na yoo xam ne dañuy jël feet am na yoo xam ne duñ jël feet ñun laa wax waxuma keneen de suñu bopp laa xam suñu école ndeysaan du ma fàttali du ma fàtte mukk histoire boobu saa yu ma defee waxtaan décembre dinaa ko ci dugal parce que ñun dañuy jàng 24 jour 24 sax dañ koy jàng waaye ba la ñuy jàng dañuy préparer xale yi depuis décembre dañuy préparer xale yi même waa jardin dañuy waxtaan ak ñoom na ngeen xam ne lii du suñu feet na ngeen ñëw jàng préparer enseignants yi ba ñu gëm ne lii du seen feet ci waxtaan boobu ñuy waxtaan xale yi yi leen yëgal ne ñun ay jullit lañ am na ci benn xale mu ngi tudd Ibrahima Ngom yaakaar naa ne noonu la tudd Ibrahima dafa xëy 4 ans la amoon jamono yooyu 4 ans la amoon mu xëy seen kër jour 25 décembre xam ngeen ne feet la Sénégal mu wékku saakam sang nañ ko ba pare wékkal ko saakam ndeysaan muy jàng si papam moo ma koy nettali mu ne bi mu génnee kër gi comme étage la génn na ci bunt kër gi magam yaa ngi ci kaw xam nga ñoom jàngi wuñu ñu koy yuuxu woo woo yéen amu leen feet woo woo yow yaa ngi jàngi di ko yuuxu papa ji nee na xale bi daal di siggi rek ne leen ñun ay jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jóge ci balcon bi daanu ndax daf ma dóor kurpañ bi ci sama dënn bi xale bi ne ñun ay jullit lañu ak ni mu ko defee ak loxo yi ñun jullit lañu papa ji daf ma wax baat boobu rek rong la ñu daal di tuur voilà loolu la mu des beneen am na ñoo xam ne dañoo yor autorisation gouvernement comme gouvernement dafay maye feet ci gouvernement programme gouvernement lañ yor foog ñu def feet bi mënuñ ci dara c'est obligé am ñoo xam ne nag ay privé lañ kenn moomu leen ñooñu nekk ay jullit xam ne lii du feet ba pare xam ne lii day dajji l'islam ba pare xam ne lii li fi mu tegu du yoon ñooñu waruñ cee participer waruñ cee bokk
kii nee na est-ce que yonent yàlla Isa yàlla la wala jàng ko yàlla démb loolu moo doon suñu fin wu tafsir sura sura al-maida ndax Isa yàlla la wala du yàlla su ngeen demee fin wu suratul maida yàlla dafa interpeller Isa daka poñe taxawloo ko yowmal qiyaama ne ko a anta qulta linnaas ittaxizuni wa ummi ilahayni min duni min dunillah yow Isa yow yaa waxoon yow yaa waxoon nit ñi yaa ak sa yaay ay yàlla ngeen taxawal fii tey nga tont Isa laa wax de kan mooy Isa yan garaat la takk ban martaba la am ci diine ban ndomba tànk tey su doon su doon mbirum gouvernement la ñu ne Isa ban ministre la yor ban ministère la yor su doon mbirum gouvernement Isa lu njëkk ruuhun min allah ruu la bu bàyyi ko ci yàlla ah ci ulul azmi min ar-rusul la bokk cinq yonent yi gën a màgg Isa ci la bokk bal sax yonent yàlla Muhammad ba muy dem leylatul isra wal mi'raj fekk na Isa ci asamaan yi Isa teeru na yonent yi alayhi salaatu wasalaam waaw waaju tol noonu ngeen jàng ci alquran mu daan dekkil ku dee ngeen jàng ci alquran mu daan tibb ban wala suuf dank ko ba mu dank mu sànni ko mu nekk picc naaw ngeen fekk mu fekk ku feebar mu wéral ko ngeen fekk mu fekk ku dee mu dundal ko mu fekk lafañ mu doxloo ko mu fekk gumba mu gisloo ko waaye lépp bi iznillah bi iznillah la ko doon defee kooku yàlla taxawloo ko ne ko kaay dañ lay laaj tey yow yaa ne woon yàlla nga sa yaay yàlla la tontul kon tey Isa laa wax de léegi nag bu ñu rombee Isa ñi nga xam ne du ñu ay yonent kenn yónniwu leen ñooñu taxaw fii ci dëkk bi naan ñu ñun yàlla lañ kon ñooñu yomal xiyaam fu ñoo yàlla fu ñu jëm Isa musul nekk yàlla keroog bu mu juddoo premier discours am bu mu génn ci gémmiñam déclaration bi mu njëkk a def xam ngeen juddu Isa kenn du leen ko nettali Mariam bu mu amee doom yàlla may ko ko te doom ji amul baay ndax yàlla moo ko mayee noonu ndax génne kéemtaanam moom yàlla foofu jarul nit ñi di waaru Cheikh Ahmad Hamid Kiski dafay wax ci benn kasetam xutba juma allazina yataajabuna min amri isa limaza la yataajabuna min amri adama yéen ñi waaru ci mbirum isa naan daa judd amul baay loolu mënta nekk lu tax yéen du ngeen waaru ci mbirum adama adama ak isa kan moo gën a doy waar yàlla ne inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun yamu ci de mu ne la alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin wala loolu yàlla waxu ko inna masala isa maa ngi leen di jox misaal ci isa mii ci man yàlla li tax ngeen di jommi jaru ko misaalu isa rek Adama doy na ci preuve Adama amul ndey amul baay te moo jur ñëpp awa ci boppam ci faaru Adama góos lañ ko génnee lan moo tax mu tudd Hawa li muy tekki mooy dañ koo génne ci luy dund loolu lay tekki yàlla bind na Adama ci aljanna mu nekk 60 mètres guddaay bopp bi ba ci tànk yi 60 mètres la. yaatuwaay ñaari mbagg yi 7 mètres la Adama tëdd ne las yàlla wax ñu bi mu koy bind lan la composé yenn saa yi mu ne ñu fii xama im masnuun yenn saa yi mu ne ñu fii salsaalin kal faxaar yenn saa yi ne mu ne mu ne ñu min turaab suuf ban bu xonk bu ñuul bu am ndox buy xeeñ la yàlla jël ci loxoom ya defar ci aadam dugal ko aljanna bi su àjjuma bi ko yàlla def defee nit dugal ci ruuxam yàlla bàyyi ko muy nelaw yàlla ubbi faaru gauche bi daal di fay génne xawwa waaw ñaar ñooñu kay kon ñooy cosaanu nit kon isa warul jommal kenn moo tax ña ci doon waaru yàlla neen ne inna masala isa inda allah ka masali adam isa misaalam ca yàlla mi ngi mel ne adama rek adama xalaqahu min turab suma qaala law kun fa yakun yàllaa ko bind ci suuf ne ko nekkal mu nekk moo tax keroog ba mariam amee doom am problème aw ma jëkkër musuma njaaloo yàlla nga may ma doom lan laa koy waxee waa dëkk bi yàlla mu ne ko soo demee ba jib dëkk ba ku bëgg a wax ak yow rek ne ko inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya ku bëgg a wax ak yow rek ne ko tey dama woor du ma wax mu yenu doom ji dugg dëkk bi nit ñi commencé ndeysaan xam nga nit ñi buñ la xamee ak mbaax bu sa yaay nekkee ku baax ci koñ bi sa papa nekk ku baax ci koñ bi amoo droit bon non non déedéet koo xam ne baayam dafa incarné lu baax ci koñ bi yaayam kazalika moom doom ji mu ñëw amul droit bon amoo droit moo tax bu ñu gisee Mariam yor doom ji ñu ne ko yaa uxta Haarun e yow seeru Haarun ah yow de sa yaay du doon jaalookat te sa baay ku baax la woon lan lañ la bëgg a fàttali ci loolu lan lañ ko bëgg a wax mooy waroo bon mu ne leen tey mënumaa wax ñu ne ko ah nga def salu weng ba pare ne doo wax ku ñuy waxal fa asaarat ilayhi mu joxoñ leen xale bi xale baa ngi ci ay laltaay mu nga jóge ca àll ba xale baa ngi bees tàq mu dugal ko ci ay sagar laxas ko ba mu ñëwee ba teg ko ñu koy rey ku nekk di wax yow yow yow yow yow yow mu joxoñ leen ko qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya yow yaa ñu yàpp nan la ñuy waxee ak liir bu tooy xepp bi ci ay sagaram ulama ut tafsir nee nañ borom xam-xam yi jàngal alxuraan ni ñu koy firee nee nañ xale bi dafa tëddoon dafa jóg daal di def ni sóonu daal di tegale ñaari tànk yi ne ko nii ndeysaan daal di yëkkati baaraamu joxoñ bi ne leen inni abdullah kon waxul yàlla la kii laaj na ndax isa yàlla la dane inni abdullah man jaamu yàlla la ataani alkitab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kunt awsaani bisalati wasalati ma dumtu fa barran bi walidati walam yajalni wa salaamun alayya yowma wulit wa yowma amut wa yowma ubas hayya xoolal yàlla pour ñu xam na mu ne zalika isa bna maryam yéen ñi laaj mbirum isa isa ngi nii de kii la kon yàlla moo ñu wax dëgg yàlla nee na isa du yàlla moom sax dane man duma yàlla lu tax bi ko yàlla poñee di ko laaj mu ne yàlla su ma xamee yow yàlla xam nga su ma waxee loolu xam nga su ma ko waxul xam nga yow yàlla sax man ba ma fa nekkee ah maa leen doon contrôle waaye ba ma fa jógee nag yow yàlla yaa ma remplacé woon gis nga loolu la wax yàlla su ma ko waxee xam nga su ma ko waxul xam nga yow yàlla xam nga li ci man xaw ma li ci yow taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsik yow yàlla ba ma fa nekkee maa doon contrôlé ku wax lu jaaduwul man la moo tax ku fi bàyyi sa njaboot ñu ñu ñu rakkaaju ba naan la yaay yàlla yaay borom jaam ñi yaay borom naam mu am yow mal qiyaam foog yàlla laaj la gis nga yonent yonent foofu la réussir 124 000 personnes wër ko mosu leen dégg benn saxaaba mu ne yàllaa ngi nii pourtant gisoon nañ ci moom mënoon nañoo dof ba ne yonent bi yàlla la parce que gisoon nañ ci moom ay signes yoo xam ne mënoon nañ déborder mais yonent mooy contrôler du bàyyi mu sedd benn waaye ñoo ne rek anta sayyiduna ant mu ne ko yemal ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh xam nga lu mu wax waa ji la tatruni kama atarati nasara ibnu mariam bu leen ma jay xam nga nit ñi dañuy jayaat dañuy jaye da ngay fekk sëriñ bi toog nga naan ko yàlla ngoog de mun a pat borom jaam ñaa ngoog gis ngeen kii bu nee naa moom benn doomu sëriñ ndeysaan ci sëriñ si dafa ñëw benn ngénte suñu koñ benn waay bu rakkaaju ne gis nga kii yàllaam baayam moo doon poñe yàlla mu ne ko déet tuub ko sama baay musul poñe yàlla voilà noonu la xoolal yàlla kii baayam moo doon poñe yàlla rek ci biir ngénte li ah mu yuuxu ne ko tuub ko du dëgg sama baay musa poñe yàlla daf ko mën da doon ñaan yàlla waaye du poñe yàlla waaw noonu la da ngay rectifier say say njaboot suñu waxee loo xam ne jaaduwul yonente bi noonu la doon rectifier soo bëggee wax lu jaaduwul mu ne la mukk waaye fii tey am na ñoo xam ne ndeysaan ñoom looloo leen ci neex waaw dañ leen di jàpp di leen jay di leen jay di leen jay ba ñu romb yonent bi jay leen ba ñu romb jibril jay leen ba ñu egg ci yàlla di leen gam-gamle ak yàlla nag waaw nga gis ñu naan nii nag di xa di xoggaliku te bu ñu la nee yàlla nga ñetti fan ñu ne sa bàmmeel a ngi nii yàlla du dee kon dañ la doon ñax rek kon Isa musta nekk yàlla musu ko déclaré te du ko musa nekk
kii nee na est-ce que dëkku nañu Sénégal toll ci quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans voire quatre-vingt-dix pour cent ñoom ñuy organiser fête bu mel ni 31 wala 24 décembre.
waaw c'est parce que yoon yi ñu leen jaarale mooy yoonu yahudi ak nasaraan yi ñun suñu administration nu muy doxee mooy feetu nasaraan yi lañ jël calendrier miladi bi lañ jël looloo tax lu fa xew rek tey gis fi Sénégal fête de fête de xawma mort fête des amours fête de ma fête de fête de kenn fête ñaata fête moom Sénégal kenn xamu ko islam moom fête yooyu nanguwu ko islam ñaari fête rek la am am na sax ci l'islam fii ci Sénégal laa wax nag am na ci l'islam lu ñuy wax feet fekk l'islam reconnaître ko feet parce que nit ñi bu ñu yàpp ne ñoom ñoom ñooy dem xalaat benn mbir ba mu rafet rek ñu daal di koy indi samp ko seen kanam daal ne lii kat lii la nañ def lii déedéet l'islam aw aw doxalin la aw dundin la yow amoo ci looy def dañ la ne yow toppal xam nga lu ñuy bañ mooy li xew tey ku nekk ubbi ku nekk am ñii samedi ñii dimanche ñii lundi ñii mardi ñii mercredi ñii jeudi ñii vendredi kenn du liggéey Sénégal feet yi kenn du liggéey ndax feet yi dul jeex bés bu nekk nit ñaa ngi ci dara bés bu nekk nit ñaa ngi ci dara l'islam nag ñaari feet rek la am mooy korité ak tabaski jeex na amul leneen pourtant sahaaba yi gisoon nañ ay fan yoo xam ne ay bëccëg yoo xam ne mënoon nañ ko feetu mbokk yi xool leen fatxu makka keroog ba yonent bi di libéré Makka ngeen defe ne journée boobu waruñu ko woon feet keroog ba yonent bi di gàddaay di dugg Madine allahu akbar waa ansaar waa muhaajiruun ñëpp ñëw ñuy teeru yonent bi di ko wayal tala al badru alayna ngeen defe ne jour boobu waruñu ko woon feet ci l'islam am na fan yoo xam ne am na bëccëg yoo xam ne wallahi bu fekkoon ne nit ñi dañuy xalaat rek di indi kon bëccëg yooyu lu jar a màggal la est-ce que bis mën na rëy ba gis ba rëy bés bi alxuraan doon wàcc jóge kaw asmaan di wàcc suuf première saar di wàcc kooku waroon nañ ko màggal est-ce que keroog ba saar bi aaya bu mujj ci alxuraan bis boobu waroon na nekk bisu feet moo tax benn yahud dafa xool benn saaba caagi ne ko ñun su fekkoon ne alxuraan ci ñun la wàcc bis bi aaya bi mujj wàcc ah danañ ko feetu dana nekk ci ñun feet waaye nag l'islam du noonu l'islam lu ñu fi rëdd ba pare la kenn amul loo ci yokk kenn amul loo ci wàññi ak loo màgg-màgg nag ak loo am daraja ak loo rëy li yàlla wax ak yonentam sharia bi fi yàlla wàcceeb moom la ñuy dund yow boo amee looy def ñëwal nga topp ci soo amee looy def ñëwal nga yokk loolu ñëwal nga jàngale loolu ñëwal nga jàllale loolu ñëwal nga woote ci loolu loolu lañ sant ab jullit waaye ñëw di créer ay mbir sos ay mbir tey sos googu fu mu ñu jëmee moo tax jullit ñi tasaaroo jullit ñi nurootuñu jullit ñi bokkatuñu jullit ñi nekkatuñu ay mbokk lu tax yow kër gi nga bokk man kër gi laa bokk kii kër gi la bokk ku nekk ak sa kër yenn saa yi su ma koy wax xale yi ci jàkka ja ma ne xale yi même laa ilaha illallah sax laa ilaha illallah dañoo dem ba diviser ci diviser ci laa ilaha illallah fii ma toog nii mën naa wax fukki façon laa ilaha illallah mais bu kenn jàpp ne damay tooñ de damay leeral rek wallahi laaye biir dong laa ci jublu dama bëgg rek ñu xam ne lii may wax ni dëgg la laa ilaha illa allah dañoo dem ba kenn nuróowul ak sa morom laa ilaha xam nga boobu am na ñu ko moom laa ilaha eh am na boobu ñu ko moom la ilaha illallah boobu am nañu ko moom voilà noonu ngay demee kër gu nekk kër gu nekk kër gu nekk man jullit laa yow jullit nga mais lan moo tàqale ñun ñaar sunu laa ilaha illallah ba mënta nekk benn maag yow ñoo bokk fu ñuy jublu ñoo bokk alquran ñoo bokk benn boroom ñoo bokk benn yonent ñoo bokk benn téere ñoo bokk benn xibla kon lan moo baax tax ngay wax beneen façon may wax beneen façon lu tax muy seytaan moo ñu bëgg a tàqale seytaan te jullit ñi bu ñu tàqaloo rek loolu moo leen nasaxal jullit ñi seen ñàkk ànd moo tax ñu nasax moo tax tey boo xoolee adduna bi partout dans le monde jullit ñi la ñuy rey sirée ngi ne le allié coalisé ak ay jullit ñuy bombardé xale di rey ay jullit te loolu tey su amoon benn côté ci adduna bi foo xam ne ay jullit nekk fa rek léegi nga gis léegi nga gis ñu réglé ko ci 24 heures mais xoolal léegi mu am ay at chaque jour boo xoolee Facebook bi boo duggee ci internet bi ah ay bomb ay toni toni bomb la avion yi di jóor ci ay jullit soo demee Palestine ba ñu juddoo ba léegi yahud yaa ngi leen di rey parce que démb la américains yi pare ci Irak ak Afghanistan kon nañu góorgóorlu nañu nekk benn nañu ànd ñun waruñu tàqalikoo jullit yàlla yonent bi nee na al muslim axul muslim jullit jullit ay mbokkam
ci ne ko lan mooy àtte koo xamante ni dafa murtal mooy koo xamante ni dafa doon doon jullit ba ci yàlla nekk ci biir boo nekk ci beneen biir ñu àtte
ci sharia islam ci réew moo xam ne dañuy dund sharia di dund islam ku fa murtat dañ lay rey yonent bi nee na man baddala diinuhu faqtuluhu ku bàyyi sa diina rey leen ko ci réew moo xam ne réewum lislaam la réew moo xam ne sharia la ñuy dund ku fa nekk jullit ba mu neex la nga murtat dañ lay rey sa bopp la ñuy dagg
ci nee na est-ce que zone noonu bu joxee exemple mu ne moom changer Jour jour jour lu ban kaa war quarantaine est-ce que exemple bu fekkoon ne ni foofu lañ doon toog ñu toog baax loolu teew kee la waaw wala doogu sax dëxin ndax toroxal bis bi nga wuuteeg ñoom yonent bi ne xaalifuhum xaaliful yahud wan nasaara wuute leen ak ñoom yonent moo ñu ko jox ndigal wuute leen ak ñoom la ñu yonent wax kon nag loolu mun na nekk jour fête boobu ñoom ñu koy màggal yow nga bëgg bañ cee bokk nga daal di wuuteeg ñoom parce que ndigal la yonent bi saa salaam joxe
léegi ñoo ko ñoo ko jox ko ñoom danaa ko sa ko am ci ñoom kenn koo xamante ni dafa na reeram ba pare ñëw gàllu boolam rek fekk na sa ko ubbee daal koy jox nee na est-ce que war mën na ko wala ko wala déet ah ñoo ñoo ñu foqale ñu nag suñu bëggee lekk foog nga ut buntu buñ ko yoonale gis nga gars yi sax ngalax yi ngalax da ngay gis ku jaral léegi mu dem di ut xarit xarit pour ñu indil ko ngalax ngalax kay xam nga luñ koy defaree wala ah dama nga defaral sa bopp rek nga naan wala nga ci uti ji ay xarit pour ñu la yekkal xam ngeen ne ñun suñu lekk dagan na ci ñoom ñoom seen lekk dagan na ci ñun wala alxuraan moo ko wax su fekkente ne liñ la indil leer na la ne charte yi dëppoo na lu dagan la alxuraan waxu la nga rejeté ko parce que dafa ne la seen lekk dagan na ci ñun suñu lekk dagan na ci ñoom
waaw benn question moom mais question moom yaakaar naa tontu woon nañ ko nee na est-ce que mun mun nañu cotiser pour fête fête bi mais gën nga ñoo xam ne loolu nekk pour fête pour préparation am ci wàll mais bu fàtte nag loolu mooy kon li mooy jeex na tontu waaw waa kon mbokk yi tontu yaa ngoog Euh, li mooy doon tontu yi moom la mbokk yi du lool la loolu la ñu préparé woon des na ci mbooloo mi ah ok am na aussi benn yo- benn boo xam ne euh, xëy na du ci du ci jotaay bi waaye laaj la bu fi ñëw mooy jullit boo xam ne dafa mere ndeyam ak baayam daal di bàyyi kër ga génn bàyyi leen foofu ndax loolu jaadu na ndax jullit war na gàddaay ndeyam ak baayam génn kër ga mbokk yi ci kaw suuf ci kaw suuf laa wax ginnaaw yonent bi gisuñu fu alquran waxee na ngeen bàyyi seeni ndey ak seen baay bal sax ci quran yàlla dane wa saahibhuma fi dunya maaruf te foofu yàlla doon wax loolu dañ koo digal waajooju dañ koo digal lu bon dañ ko digal sirk dañ ko digal bokkaale yàlla mu ne bul def bokkaale bi de wala tutihuma waaye wa saahibuhuma fi dunya maarufan àndal ak ñoom ci njëkk wa qada rabbuka an la taabudu illa iya wa bil walidayni yàlla nee na ginnaaw man yàlla ba ma passé man yàlla maa la sant maa dogal nga topp sa ndey ak sa baay même buñ nekkoon ay yéeféer doo nekk yéeféer de waaye amoo droit gàddaay leen bàyyi leen surtout nag ngay tàngal seen xol amoo ci benn droit génn kër gi tudde kër gi këru yéeféer donte ne ay yéeféer lañ laa wax amoo woon droit ci loolu mbokk yi ndey ak baay dénkaane yàlla la yàlla moo nu dénk sunu ndey yi ak sunu baay yi képp ku ñu topp luñ ko mën a defal ci kaw suuf sunu ndey ak sunu baay moo ci gën a yell ku ñu mën a doon nag ginnaaw Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sunu ndey ak sunu baay moo ci tegu yàlla moo ko wax alquran la man yàlla ba ma jàllee yonent bi yàlla mu ne yonent bi jàll mu ne seeni ndey ak seeni baay moo ci tegu Yunus nee na alquran ko temedere simore e sappo e nayi min donki heen yiide yo yo ceerno ma ɓurana yumma e bamma yen ñi tugalor Yunus nee na alquran téeméeri saar la ak fukki saar ak ñaata ñeent ah nee na gisuñu ci ne la sa sëriñ gënal sa ndey ak sa baay gisuñu ko ci alquran yeneen ci yàlla Moussa dafa Moussa laaj yàlla ne ko yàlla man damay dugg àjjana yàlla ne ko waaw Moussa ne yàlla kan laay àndal yàlla ne ko taxawal sa bundu kër ku la njëkk a romb rek kooku ngay àndal Moussa taxaw rek benn xale bu góor romb ko mu ne ah kon waa ji la waaye dinaa xam lan la def ba nekk sama àndandoo aljanna Moussa topp xale bu góor bi ba mu dugg ci benn kër Moussa di ko xool. mu lël basang jël basang lal ci digg kër gi dugg ci biir néeg bi génne benn màgget bu jigéen teg ko ci digg basang bi tekk muus bu mu yoroon ndeke yàpp ci nekk muy dagg yàpp bi di ko jox mu lekk ba ndaw si suur mu may ko mu naan mu yëkkati ndaw si delloo ci biir néeg bi daal di lem basang bi delloo daal di jëlaat mbuus ma ak fitt ya génn buntu kër gi mu fekk Moussa taxaw Moussa daal di koy nuyu mu fay Moussa téye ci mbagg yi Moussa ne ko ki nga doon jox mu lekk muy naan lu ngeen bokk mu ne ko sama yaay la innaha ummi sama yaay la mu ne ko gis naa bi nga ko joxee mu lekk foo jëlee lekk bi mu ne saa yu ma xëyee danaa jël sama fet flèche dugg ci àll bi rey ay njombor rey ay picc suqi leen lakk leen ba ñu ñor mu indi jox sama yaay mu lekk mu ne gis naa bi nga ko joxee mu lekk ba pare nga may ko mu naan gis naa mu lay ñaanal lan la la wax lan la doon ñaanal mu ne chaque jour su ma ko joxee mu lekk ba pare dina tàllal yàlla ay loxo nekk allahumma ij'al maa ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna yàlla sama doom ji yàlla na nga ko booleeg musa biir aljanna allahu akbar musa daal ni nii xale bu góor bi ci mbagg yi absir fa ana musa wa anta rafiqi fil janna kontaanal bégal maay Moussa yaay sama àndandoo aljanna xale boobu fan la amee ñaanu aljanna ndax yonent bi waxul aljanna taxta aqdaamil ummahaat yonent bi waxul loolu aljanna ayna mu ne taxta aqdaamil ummahaat kon mbokk julit yi waa jooju génn seen kër gàddaay ko bàyyi ndeyam ak baayam ne yëg ne dafa war a delluwaat sukk ci seen tànk jéggalu leen naqar boobu mu leen teg depuis mu génn kër ga ba fii loolu laa koy conseillé insha allah bismillah ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp nu wasil
kii nee na est-ce que mën mën naa leeral ci benn waxtu bu gàtt rek ci waxu al-Ikhlas nga daal koy firi ci tënk
suratul ikhlas na dana métti de suratul ikhlas moom la ñuy wax qul huwa allahu ahad sababu nuzulam mooy gaa yi dañu doon laaj yàlla mooy kan jox ñu ci yàlla ay melokaan wala nga indi ñu ñu laal ko wala bu fekkee dañ koy dégg ñu dégg ko wala bu fekkee dañ koy xeeñtu ñu xeeñtu ko saar bi borom xam-xam yi wax ne su yelloon ñu ne moom mooy carte d'identité yàlla yonent bi ne moom mooy sulusul Qur'an muy suratul Ikhlas ci gis nga déggin boobu moom la sénégalais yi def suñu deewee ñu ne nañ ko jàngal fekk Ikhlas ak benn ah loolu la foofu lañ ko jëlee nañ ko jàngal fukki xul wallaahu ak benn est ce que jàng nañ ci sunna yonent alayhi salaatu wasalaam mas na jàngal ku dee fukki lixlaas ak benn xam nga nit ñi nit ñi seen xel lañuy demee ci diine ci léeg-léeg ma laaj ma wax ak mag ñi ca koñ ba ci ay xew-xew yuy xew ñu ne oustaz waxal ci lii su ma waxee ñu bëgg indi ay problème man leen déet man damaa bëgg rek lépp lu ñuy def rek ñu jiital yonent bi d'accord ngeen ñu ne waaw ma ne leen yéen place bii armeel yii ñu taxaw néew bii ñuy dugal wax leen ma rek fan la yonent bi wax nañ ko jàngal lixlaas bu ngeen ko waxee rek léegi ñu jàng ko ñun lu baax rek lañ bëgg suñu néew bi dañoo bëgg mu dugg àjjana ay dañ naan déet c'est que magum diw mag diw mag diw mag diw yonent bee ko mag wala am na mag mu mag yonent bi yéen laay laaj de yéen laay laaj da ngeen a ragal a tont dafa am mag mu mag yonent bi ci lislaam waaw beneen li gën a doy waar mooy yonent bi gémmiñam gi ñaan bu mu génne yaakaar ngeen ne yéen am na beneen ñaan bu ëpp ñaan boobu barke dama leen di laaj ñu ne ñaan bi yonent bee ko joxe ñu ne ñaan bi ustaas moo ko joxe gars yi di njëkkante ñaan bi bàyyi ñaanu yonent bi ban moo ëpp barke ndeysaan Abdullah ibn Omar dafa ñaan ndox may leen ma ndox ñu may ko ndox ki ko may ndox ne ko pondaal bii de yonent bi mës na cee naan mu ne nii daan nii muy wër ba pondaal bi daj ñu ne ko di nag mu ne damaa bëgg sama gémmiñ laal fu yonent bi gémmiñ yonent bi laaloon parce que xam na ne loolu moo am barke suñ nee yonent bi def na nangam Abdoulaye ibn Omar ñëw na ci kaaba gi ñu ne ko yonent bi wéeru woon na ci kaaba gi mu ne fan la yaay ne ko xamuñu ko de rek mu simmi manto bi teg mu song kaaba gi di teg dënn bi naan nii di teg ba kaaba gi daj ñu ne lii nag ne damaa bëgg sama dënn laal ginnaaw gi laal fu dënn yone ginnaaw yonent bi laaloon ñooñu noonu lañ bëggee woon yonent bi alayhi salaatu salaam ñun noonu lañ ko war a bëggee suñu nee yonent bi nee na soo jullee ba pare waxal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabaraka ya zal jalali wal kiram soo jullee pare waxal loolu waaye nga julli pare naan loolu loolu ngay def ku la ko wax yow loolu ngay def foo ko jëlee ma ah suñu jàkka da laa wax xaw ma yéen seen jàkka yi man damay gi julëb waaw kii lu muy fóon lu muy bind waaw kooku ñaan boobu muy def tey soo ko ne yow waa yow li ngay def nii ñaan bi ngay def nii di kii nii kooku mu ne la gis nga wallahi benn mag bu baax moom ma ko jox waaw mag boobu ak yonent bi ku gën a baax ah mbokk yi mag boobu ak yonent bi ku gën a baax waaw lu tax doo jël yonent bi bii mu la wax ah bi yonent bi ni kay rawatina yàlla ne wa ma ataakum rasul lu leen ya yonent bi indil jël leen waaw léegi yonent bi indi la nga bàyyi fi jël leneen kon mbokk yi suuratul ixlaas saar la boo xam ne dara gënu koo màgg xam ngeen Abu Zar Abu Zarin il Gafaari rubuul islam Abu Zar yonent bi dafa ñëw Jibril dafa ñëw di waxtaan ak yonent bi di waxtaan ak yonent bi bay dem daan ne yonent bi bu Aba Zar ñëwee nga nuyul ma ko. yonent bi daal di jàppaat ci loxo jibril ne ko da ngaa xam abasar mu ne wa kayfa la aarifu wa jamiul malaika fi sama yaarifunahu kooku du man kese di kooku mboolem malaaka yi kaw asamaan dañoo xam abusar ñu ne kayfa yaarifunahu naka lañ ko xamee mu ne li kasarati qiraatihi qul huwa allahu ahad ndax dafa bëri lu muy jàng qul huwa allah yonent bi jibril dem yonent bi woolu abasar mu ñëw mu ne abasar yow lu tax ngay jàng xul wa allah lu tax mu ne mooy carte d'identité yàlla te man dama bëgg yàlla yàlla daf maa neex moo tax su may julli lu ma mën a def xul wa allah rek lay jàng waaw kon saar baa ngi noonu xul gaa ñi lay laaj yow muhammad moo tax loolu moo lay wan ne alquran du waxu muhammad su doon alquran waxu muhammad la du am xul xul mooy lan waxal fii lu amrin dañ ko jox ndigal ne ko waxal ndax du waxam su doon waxam la du am xul day ñëw rek ne allah commencé waaye yàlla moo ko jox ndigal ne ko qul waxal yow muhammad allahu yàlla mi ñuy laaj ahadun kenn la allahu ahad yàlla kenn la dañ lay laaj yàlla moom ndax ñaar la loolu moo tax gis nga pas pasu jullit ak pas pasu yahud ak pas pasu nasaraan du benn ndax nasaraan yi dañoo gëm ne yàlla ñaata la ñett yàlla nasaraan yi dañoo gëm ne yàlla ñaata la ñett moo tax yàlla ne leen laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salas wa ma min ilahin illa ilahun wahid allahu akbar yàlla kenn la moo tax mu ne la allahu ahad allahu yàlla moom assamad moom la ñu jublal mbir yi moom yàlla moom moom la ñu jublal mbir yi moom yàlla moomu lan mooy assamad mooy koo xam ne yow lañ jublal lépp te yow sa mbir jubluwoo ko ci kenn ndax yàlla ay mbiram am na kum ko jublu kenn lépp kun kun fa yakun innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun gaa yi naan wa amruhu bayna alkaafi wan nuuni wa amruhu bayna alkaaf wan nuun rek mbir mi daal di sotti moom yàlla lam yalid jurul kenn loolu leer na xoola jullit bu jàng lii ba pare 24 décembre jot non allahu akbar léegi léegi la julligee jàng xul wàlloo génn na waay maa ngi kii quoi lan la ilaha illa allah léegi léegi la julligee di jàng saar bi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid yàlla ne juruma kenn waaw man juruma kenn moo tax yenn saa yi fii ñu naan maam yàlla yàlla jurul seen baay de te loolu kalimatul kufru la koo dégg mu naan maam yàlla rek wax na baatu kéefir moo tax nañ def attention ci baat yi wa laqad qaalu kalimatal kufri nañ def attention jullit du lu ko neex mu wax yenn saa yi nga dégg xale yu góor yi boo dee yàlla towal doj la nga dégg ñu naan yàlla léegi yàllaay tey ji xale bu góor la de jin seera lay sol yor seen tiram loolu wax ju reewande la yàlla fa mu nekkoon démb ak barki démb foofu la nekk musu faa jóg musul bouger musul changer yàllaay tey ji yàllaay démb nag kon yàllaay démb nag yàllaay tey moo tax ñàkk pas-pas bu baax ñàkk jàng diine day tax nit di dugg ci ci kufru xam ngeen ne am na loo xam ne ci lislaam boo ko defee sa jàpp yàqu am na walla soo jàppee ba pare am na loo xam ne boo ko defee yéen ñi jàng arab ngeen koy wax nawaaxidul am na loo xam ne boo ko defee sa julli mooy yàqu ngeen koy tuddee nawaaxidu am loo xam ne boo ko defee sa koor mooy yàqu ñu tuddee ko nawaaxidu am loo xam ne boo ko defee sa aj mooy yàqu ñu tuddee ko nawaaxidu am na loo xam ne boo ko defee sa islam mooy yàqu ñu tuddee ko nawaaxidul islam soo ko defee ba pare génn nga ci islam yéeféer nga loolu nag donc loolu li ci ëpp waa Sénégal dañ koy def lu tax parce que xamuñu parce que jànguñu mbokk yi wax dëgg yàlla duñu mën a continuer ci laaj yi ndax ci waxtaan laa jógee ci laa yendu fii su ma fi jógee léegi encore damay demaat ci beneen waxtaan fa laay fanaan moo tax du ma mën a continuer te ñii dañ ma ne woon 4 heures ma bàyyi sama añ ñëw ndeke commencé ne 5 heures la ñuy commencé kon incha allah damay gàttal fi kàddu yi pour mën a delluwaat préparer waxtaanu guddi gi incha allah maa ngi jéggulu pour ñu may ma ma dem noppalu ji daal incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah.
waaw asalaamaaleykum.